some we are day. Dagu from you. sama jëkkër ji may sëyal maa la nopp waa tubaarkàlla màgget baay waa ndaw moom garaaw na di xam nga xam nga jëkkër boo ko nobee tubaarkàlla mu nob la bëgg la taamul la boppam mm-hmm. teral la sagal la ndeysaan amoo lu dul foo mën a toll di ko bàkk ndeysaan te man sama jëkkër li may wax chaque jour rek du ma doyal ci di ko bàkk saa su ne ndax lu ma mën wala lu ma mënti def moom la mm-hmm. Mm-hmm. kon ñu bàyyi la nga nuyoo téléspectateurs yi di wax asalaamaaleykum ñu ngi nuyu fans yi sopp yi am di jàmm yi waaye nag di nuyu képp koo xamante ni yaa ngi bëggee Maguette Mbaye mm-hmm. ñu ngi lay nuyu bu baax. Mm-hmm. rawatina sama yaay. ndeysaan. ajaratu Fatou Lam jigéen ju baax ji. lépp lu ma mënti am rek moom laa koy sante may gërëm sama papa bu baax bàyyi bu njaboot. Mm-hmm. di gërëm samay mag yépp. Adja yaay ñoom may mun a maa ngi nuyu ñëpp. maa ngi ziyaar ñëpp di nuyu nag sama famille jëkkër maa ngi nuyu ñëpp mm. Maguette mbaay maa ngi nuy ñëpp di nuyu sama famille jëkkër la noo dundee tey tabaski gi en tant jigéen jànk yi dem mm-hmm. kër yi metti mm-hmm. doo lépp yaa koy defal sa bopp waa xam nga nag ñun sëyeegunu d'accord sëyeeguma maa ngi sama kër yaay waaye yàlla dogal na yàlla may ñu jéeg ju baax mm. joo xamante ni duñ nangu sax nga laal dara. ndeysaan ndey laan sama jéeg ba ci kër ga. Mm. li ma ko naan kër borom du ko yàq te kër gi yaa ko moom. Mm. Seyni Fallou Mbaye waaye maman Samb. Mm-hmm. rakkam tamit ñëw ni ko doo ko dàq. mbaa daa mel ni Oumy Gueye gaar sama mag ji. <laughs> ndeysaan moom it. Mm-hmm. nekk sama mag ji moom tamit tubaar fakal la macha allah Oumy doon mm-hmm. jigéen ju baax bëgg jëkkëram lool. wallaay dëgg la Alaaji Modou mm. maa ngi koy nuyu bu baax. ndeysaan daf ma defal teraanga ndax dafa mm. gàdd sama loxo dem ba ci télé bi muy liggéeyee. Mm. ni leen kii lu ko waay defal man nga ko defal. ndeysaan ndax sama rak la. Mm. lu ko waay defal lu ne. mën nga ko defal kon moom it maa ngi koy nuyu bu baax. ndeysaan waaye daal tey ni ñu ko dundee mooy nag. nekkoon ci biir waañ bi rek jàppale jéeg ji. Mm-hmm. ñëw nag togg yàq jox papa jox yaay. màgget dafa lakk wala dafa xëlwa wala dafa tufe wala boo ci def. <laughs> waa xam nga xam nga xam nga nag kër gi dañoo am benn sàmm boo xamante ni dañoo rax mu yow sàmm xam nga dafa bëgg lekk <laughs> yàlla dogal na nag dañuy xëy muusal rek. ndeysaan ba mu ñor yooyu ñu daal di mm-hmm. koy lakk nag ba pare doog a teg. waaw. market marché bi xaw a tuuti rek. waaw marché bi moom moom moom métti na lool. Mm-hmm. képp koo xamante ni borom kër nga rek. Mm-hmm. yëg nga ko. dëgg la surtout ci jamono yi. dëgg la boo seetloo tabaski ren bi. métti mm. na trop. da xool góor ci boppam yow nga yërëm ko. dëgg la. ndax dépense bi metti mm-hmm. affaire yi dëgër lool. Mm-hmm. ñuy ñaan ci yàlla li fi amoon fan yii ci ginnaaw yàlla bu mu fi amoon. ci barke yonent bi. waaye képp koo xamante ni boroom kër nga. Mm-hmm. wala képp koo xamante ni jeeg nga di yeewu ci biir kër ba dugg ci biir marché bi. ah boo duggee di nga xam ne lii metti na trop. ñuy ñaan rek yépp wàccaat rek. ci barke yonent bi. ku ne déwénati ni ndewenal. tubaarkàlla nga jàkkaarloo ak sénégalais yi. tubaarkàlla télé bi nga toog di télé jigéen. looy may may mën a ndur fay aka pelaal ko tubaar kàll donuy waal yee wule ñaañ ngañ yee jamuli joo wule gay naa ke yoo Maymuna Ndour Faye jàmbaar nga jàmbaar ji lay bëgg ji man bàkkal ma woy gaynde geey Maymuna Ndour Faye nit ku baax la dégg naa ni yaa ngi baax man ma ñëw fekk la ngay baax xam naa ni bu ma delloo bàyyi la ak sa mbaax gi Maymuna Ndour Faye ay Faye biram penn waajaan dugu dugu waagaan ah, xanjul waagaan waagaan kumba sanjaa bàkk naa la jobbe naa la eehey eh, naan naan la li nga def ci Sénégal cuune mënu ko magi Adama magi papi sama góor man yow Fanta Séeri Jaat mooma de sama seex bi ñëw na yow mii yéen a moom yéen a moom déwénu ah. jaato sama seex bi ñëw na waaw waaw sama mbayaan diw feen buur balay ñaan yaa ngi ci may mun a rek de kenn du njëkk may nangu jël sama mbayaan xare ba ca cuur cuur may mun a ku ca yóbbu buur ndur wali bi gaal ale baba jor nduur mi ci jaayaan hee ma gën mbaay nuyu naa la chéri pambay ma jaaga nuyu naa la rakki ñooy bay sama seex bi nuyu naa la yow jërët dem naay waaw ni mu jugul mbéy saaxe ya lambaa yéyéyéy jugul mbéy saaxe nga lambaa jëre mi ci mbéy sa maam saaxe mi ci lambay sa maam yow Sénégal ak li mu yaatu yaatu ku ni xam na ni kii de sama seex la mi yaayu maam naa maam naar yaayu kii de sama seex la man. wallaay wallaay tubaarkàlla mbaay waaw noo jongo maa nii maa tubaarkàlla lii dëgg kontaan naa kii nag kontaan tey li nga def sax xamoo ko wallaay dëgg la Fanta man ak moom benn lañ ndeysaan duñu ñaar mu nekk sama seex mhm. doon sama xarit ndeysaan bañ na ko ba doom yi mu jur yaay lañ may woowee dëgg la waay bu ma nekkul sama kër maa nga këram muy mhm. sama xarit di sama seex waaye damay nuyu sama waa ji nag la ma ci Amérique baax loolu bëgg ma di ma defal teraanga fu mu toll. Mm. maa ngi lay nuyu ngay kontaan naa naa maa gale maa mbay sama mag ji kenn du yow kontaan naa ma ni tamit jërëjëf kontaan naa yàlla ko teewe déwén waa mag lii mbaa jàmm la tamit bii tren waa ba jaagaa ngi noonu lii tam lii tam war <laughs> ngoy naa la maa ngi lay nuyu maa ngi lay fay ma femme chérie sama rakk sama xarit mm-hmm. ziar naa la nuyool la waa tubaarkàlla ngooy maa ngi lay ziyaar maa ngi lay fay di la delloo njukkal bu baax di la wax déwénati dëgg na euh, fekkeel déwén yal nañ ko teewe at yu bari ci barke Seydina Muhammad amiin yaa rabbi ngooy mbay nit ku baax jërëjëf nitu valeur sama mag yow koo woo lu mu sonn sonn dina ñëw wallaay gis naa lu mu xat-xat dina ñëw jërëjëf ndax nitu valeur nga te xale yépp nga boole bëgg leen kon yow macha allah waa noo jongo maa ngi sama ji fal ko rek yaayu ngore ñaawoo de bi maa ngi ni toog dëgg du neex tubaarikàlla macha allah xam nga mhm. dañu ne ki la yor maam mi ni loxo ba lu ma waay téye ma xam ko dëgg la tubaarkàlla macha allah may mën a ndur fay mu ñu téye dafa xam lan mooy sunu valeur ñu di ko nuy waat de passage bu baax a baax baax kenn du tàyyi dëgg la fante comme dañu dugg ci heure Mm-hmm. macha allah war a dem ci Mara Thiam. ndeysaan tubaarkàll mu seeti Omaro mu baax mi. ndeysaan bàyyi soxna Ndour. bàyyi soxna Canta. ndeysaan tubaarkàll ñu bëgg rek. Mm-hmm. nga ñëw ci acapella ñu laaj la tubaarkàll tam ci julli gi rek bañ a dugg ci heure am noo togg tey. waa tubaarkàll ni ma toggee. man xam nga ni xam nga ni miin naa ay togg miin naa ay lakk yu baax yooyu. waaye déggal lu neex lii barke yu neen TV. man yoo ci yooyu rek lay dox te